mbedd mi du kër loolu la jëwriñ bi ñu dénk wàllum ndaw yi ak jigéen yi xam ba tax na muy taxawal ab projet bu ñel wàllu googu. daje tey bi nag li ko sabab lenn rek la dañ ko jàpp pour lancer projet boo xam ne projet bu bees ñu koy wax projet d'appui institutionnel au système de protection de l'enfant au Sénégal muy projet bu xam ne. coopération ak Andalouse te Maroc aussi dugal ci loxoom moo ko indi jagleel ñu ko li ko tax a jóg mooy fexe ba xale mbedd mi doonati këram. mu nekk jéego bi nga xamante ni amal nañ ko ginnaaw visite bi seen partenaire marocain yi ak espagnol def fii ci biiru réew réewum Sénégal. jotali looloo tax projet bi tànn région yu mel ne Dakar Saint-Louis Thiès ak Kaolack pour fas yéene fa yëngu. ndax ràññe nañ ci gëstu yi bërëb yooyu ñu lim mooy fi nga xam ne wàllu xale ci mbedd fa la gën a takar naase ñu ne donc nañ ci fexe ba góorgóorlu ba mën ko wàññi wala ñu jëlee ko fi su fekkee ne sax mën naa nekk. donte sax def nañ ci ay jéego yu bari waaye ba léegi am na lu ci des mu baax rek lëkkaloo am diggante riñ ministère de la justice éducation nationale jeunesse. coopération développement communautaire collectivité territoriale communication ku lim jum ñoom ñëpp dañu jóg ànd ak ministère de la femme de la famille de la protection des enfants ministère de la santé et de l'action sociale aussi ñëpp jàppoo pour fexe ba xale ñu mën ko aar xale ñu mën ko jàngal tetagal ko bànneexal ko pour que bu màggee mën a nekk ku am njëriñ ci réew projet bile lenn moo ko tax a jóg mooy ñoŋal nekkinu xale yi aar leen ñu fas yéene ko dawal ci diiru fukk ak juróom-ñetti weer mu nekk jéego bu ñeel wàllum protection xale yi